ay ca la ba tey comme ni ñu leen ko waxee yéen a ngi seen spécial plateau Saint-Valentin ah balaa ñuy dugg nag ci waxtaanu mbëggeel dañuy dugg ci way ba pare te nag joom ba tey comme ni ma leen ko waxee rek dala fi beneen daanaan ah daanaan loo xamante ni tabarkalla xale yi ràññee nañ ko bëgg nañ ko ndax mën a sañseem bëgg nañ ko it ndax mën li muy def damay bàyyi rek sama doomu nday présenté ganam waaw gis nga koo kookoy papa 3 mhm. foog naa jarul présenté moom it mhm. euh, gars yi xam nañ ko mhm. te et puis li def allah. ñu lay ñaanal lu gën dem kanam. Euh, ngi lay dalal sama plateau papa. maa ngi lay fay di bu baax mais papa na def moom comme ñëpp na nuyoo ak voix am. neexul xam nga Saint-Valentin lañ wax. la allah bis bisu mbëggeel la. Mm. bisu bëggante buñ nee bëggante. Mm. li lal dafa mm-hmm. ba tax na du bis bu ndaw macha allah. ndax ku ci nekk am nga sa waaye am nga ngay bëgganteel. Mm-hmm. ba tax na loolu buñ ci woowee dañuy sawar pour ñëw. fi seen sori yërëm naa leen macha allah waa gis nga. bisu mbëggeel daal. Mhm. bisu ñëpp la. ku ci nekk da ci yëg sa bopp. Mhm. muy ndaw muy mag. Mhm. ma chéri boy nopp naa la bëgg naa la ci mbëggeel moo bari doole mbëggeel moo bari doole chéri boy boo mën a xool ma ci weer wi ma chéri yow laay sago yaa nekk ci sama xol bi maa nekk ci sa xol bi yaay sama doole oho mbëggeel yow laa miin yow mën nga miin bul dem bàyyi ma ginnaaw oh kon mu ñaaw bi bi boy waaw loolu laay nuyoo <laughs> bañ dem ba ci kanam. <laughs> kontaan <laughs> mais loolu loo looy liggéey la loo loo nekk di bind la wala loo toog léegi rek nag sa xel nga nga nga nga jox ko. nga jox ñu ko waaw allah nag mën naa ni lii moom damaa toog fii rek way ko. muy mel ni Papa Wally lañ doon wax waaye léegi maa ngi jégalu bu wér. Papa 3G mm-hmm. la. man sax sama question foofu laa ko bëggoon a andi. Mm-hmm. ndax mm-hmm. Euh, Papa ñëpp dañ koo xam ci Papa Wally. donc ñu jékki-jékki rek Papa supprimer Wally bi euh, di doxee Papa trois g donc. Euh, lu waral loolu. ndeysaan mën naa ni xër la ci Wally Seck parce que man damaa bëgg Wally sekk mm. mais bëgg gi ma ko bëgg moo war a Papa Wally ndax bañ ma naan Papa Wally sax wayu ma. wayagu ma mbalax. mais ñu ma Papa Wally Papa Wally parce que da nga nduróog Wally yow kii Wally nangam. Mm-hmm. ñu naan ma Papa mm-hmm. ma dugg ci way Papa Wally gaa yëpp xam ko. mais Papa 3G. ku ne xam na ko. Mm-hmm. moo nekk sama ginnaaw muy génération bokk gis-gis. ñu dindi ko 3 yi loolu moo indi 3G. Mhm. muy Papa Wally ak waa 3 loolu moo indi loolu. waaw ah, man man bu ma la déggee bu baax dafa mel ni que kon mais yow moo tax nga nga nga way. non Wally non pare da nga am feeling am caaj ni Wally moo tax yow nga dugg ci woy dama li ma mooy moom li muy roy Wally man du ma dégg muy woy ay woy Wally Seck quoi. macha allah gi noonu la demee mais. li ma la wax rek mooy liñ ma doon wax papa Waly boobu way ma. mais yàgg naa di way mais pas mbalax. papa ku ko xam-xam ko ci cant. waaw dégg naa ay cant la daan cant su ma la ko jàppalee fii toj. Hmm. waa damaa mën a way cant waaye suñ borom mooy namm ci yow. Hmm. waaw moo namm ci ñun lii. Hmm. te dañ koy sant yàlla aussi. da dañuy xam ne lii moo gën ci ñun. Mhm. mais defuñu ko pour lenn. Mhm. dañ ko def pour bégal jaam ñi. Mhm. muy mel ni de loolu lañ tax a jóg. maa ngi kontaan lool ci plateau bi. ok mais bi nga jógee ci cant yi dugg ci musique bi. loo déggoo ci euh, loo xamante ne nii euh, da lay parce que xam nga Sénégal lañu nekk boo jógee ci euh, lu jëm ci wàllum diine. après nga dugg ci showbiz bi affaire yoon du ñax. des fois nga dégg ay wax yoo xamante ne nii yu lay metti la yoo jot nga ko dund si ci ci li nga def wala. waaw ndeysaan man nag suñ borom damaa dimbali ci loolu muy nit ñi ci bëri dañ maa comprendre ndax man damaa nekk nit koo xam ne du ma tricher lu ma def rek xëy na lool noonu lu dëgg ci man et puis nit ñi xam nañ ni li may def caaxaanuma ko parce que dama koo bëgg moo ma jaral tëb ma tëb rek bàyyi cant ndax damaa voyagé woon ba ma voyagé nekk ci yeneen woyuma maa ngi ci yeneen nekk di liggéey ba ma ñibbisee. sentir mbalax bi. fa ma nekkoon ni ma fa doon def acoustique. ba mu ñibbee continuer loolu. ok mais man dama bëgg ñu dugg tuuti ci côté euh, mbëggeel parce que ku mm. wax euh, Saint-Valentin ne ne ne ne ne bisu mbëggeel. Mm. Euh, bis yu mel nii bu jotee gars yi dañ ciy taamu artistes yi donc ñu di leen bégal di jël seeni son est-ce que papa moom mu ngi préparer ay son yoo xamante ni ay son mbëggeel la pour ay fansam yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg. waaw bu baax xam nga buñ ne artiste moom. da war a complet maanaam fu ñu la wokk da war a ñëw muy mel ni muy ci mbëggeel muy ci ci àdduna muy ci lépp ñu ngi ciy bind ñu ngi ciy xalaat ñu ngi bind bu baax Papa man mën naa ni ñëpp laay déglu ñëpp laay déglu kuy waykat dama lay déglu damay fanaan ci YouTube ba bërsët di déglu ndaanaan yépp waaye man suñ borom dafa maa dimbali man ma bëgg man ma bëgg sama yëfu bopp muy mel ni cant sax ba ma ko daan woy damay bindal sama bopp muy mel ne loolu gëm gu nekk ci man la mm. muy mel ni man foofu laay doxee mm. muy mel ni maa ngi ciy bind bu baax maa ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey mm-hmm. woy gi nan ko koy dundee sa biir famille waaw ñàkkul mère bi wala bi li def trangé bi waaw ndeysaan man moom dama yaroo maam mm-hmm. sama maam moo ma yar ma nekk ak sama yaay mm-hmm. sama yaay tamit yàqu ci dara moom mën naa ne lu doo ma bëgg muy lu baax mhm. lu ko dul yàqal dala ko ci poussé encouragé la ci mhm. te xam na ni Papa Wally tuxul Papa 3 tuxul mhm. maa ngi jégalu tuxul sàccul fenul te xam nañ ma ci nité de goo xam ne loo ma nekk rek sañ nañ ma cee bàyyi dooleel ma ci parce que xam nañ man maay kan acca ba tey mu ngi noonu muy Papa Wally di ndaanaan boo xamante ni si mu ngi ci banlieue bi tabaarkaala li nag dafay wane ne El Vision Médias nekk lu fi euh, ndaanaan yi nga xamante ni ñu ngi ci kaw lii day wane ne El Vision ñëpp la fi nekkal ñi nga xamante ni dégg nañ leen ak déggaguñ leen ñëpp lay waxtaanal dégg leen seen micro su ko defee ñoom it ñu mën a xam ne euh, ci ci euh, ci société bi lañ bokk ay ndaanaan lañ dañ leen bàyyi xel donc papa ginnaaw loolu lan ngay waajal sa fan si jamono ji waa fi mu ne nii nag maa ngi studio maa ngi waaj maa ngi waaj lu rëy muy son maam Cheikh Fall ma way ko mu neex ñëpp ku ko déglu apprécier waaw muy mel ni maa ngi koy waaj maa ngi waaj tamit beneen son muy bul soppi jikko. Mm. maa ngi waaj ñaar yooyu te xam naa ne bu génnee. dina toj Sénégal day soppeeku comme kàkkataar. waa gis nga moo tax moo tax ma ñëw ci loolu. Mm. xam nga damaa toog maanaam man damay toog di xalaat ma ni fi Sénégal toll. Mm-hmm. maanaam. faaw nga way loo xam ni nit ñi dañ koy dégg. dañ koy waaw mooy mel ne maa ngi ciy sant yàlla bu wér. Mm-hmm. sama way mag sax da koy déglu apprécier dama ma li ngay way du wayu gone. mais papa est yaa ngi sóoraale jamono ji ak jeune mm-hmm. talent yi fi. def buzz ñëpp mm. kenn wooyu fi loo xamante ni si luñ mën a dégg la mm. donc dañuy créer benn affaire boo xam dañ koy toog di ko waxtaane mm, rek après sénégalais yi bëgg ko est-ce que Sénégal ñoom am nañ esprit boobu di nga dem togg benn affaire ñëw jox leen ko ñu consommer ko mu wër réew mi parce que booy xool li wër réew mi yëpp amul dara luñ ci mën a consommer quoi c'est vrai c'est vrai xam nga gars yi moom ay ndaanaan lañ te dañoo mën a way pire gars ay ndaanaan lañ te mën nañu way te li ñuy way xam nañ fi ko teg muy mel ni xëy na dëkk bi moo laaj loolu man duma ci wax ma sàmba duma ci wax ma demba ndax yenn saa yi damay way jàkkaarloo damay way yi mu neex ma rëppatal ba mu neex ndax waaw euh, ñu def lu ñu saf ndax <laughs> waaw réew mi fi mu toll ñoom ñoo ñooy bëgg de luy dindi seen stress kon loolu du ci condamné gars yi mm-hmm. mais ñiy déglu way mm-hmm. te way soxal leen mm-hmm. ñu ciy jëlee ñooñu su suñu wéetee ñoom rek xam nañ way ñuy déglu macha allah mais nii nii nii nii yow dafa am groupe boo nekk wala dafa am benn label bu nekk sa ginnaaw. Hmm. wala da ngay demee sa moyen bopp rek naka la quoi. waaw man nag mën naa ni ñun ñooy demee suñ moyen bopp. Hmm. muy Papa Wally waa hmm. mu mel ni ñoo taxawal suñu staff. Euh, ñoo taxawal suñu groupe. di góorgóorlu di organiser suñu soirée. muy mel ni Bamba ñëwoon nga. sama soir bi passé gisee fermé kenn xaju fa macha allah nit ñi ñëw ba taxaw ci porte bi mm. te loolu dañ koy sant yàlla suñu borom mm. te mën naa ni Papa Ali singalam génnagul te bu mm. wootee mu fees loolu tamit jaaxal nañu bëri bokk na aussi ci li nga xamante ni dugal nañ ko ci biir El Vision mu euh, bokk ci euh, li nga xamante ni bokk na ci li ëpp ay vues ci El Vision muy dîner de gala bi nga xamante ni si defoon na ko fii ci euh, centre polyvalent donc ñu lay jaajëfal bu baax a baax joom bu dee amaatu leneen loo koy leneen koy laaj parce que eh? ngi ci fête Saint-Valentin dëgg la am nga mm-hmm. soxna wala amoo wala wala coro nga am loo am <laughs> ah, <laughs> <laughs> non man man nag ma ko ci gudd bi ma man non non maa ngi ci dara maa ngi mm. ci dara mais am amaguma soxla mais bientôt rek incha mais ki nga nekk est-ce que ñame nga tudd turam ci plateau bi. non moom nag bëggul lool. <laughs> man moom ragaluma lool. Euh, waaye su <laughs> su ko neexoon léegi nekk fi <laughs> waaye moom moo bëggul lool. moom mooy bañ lool. waaw ah, ma gis xale yi ñu doon toppee. Mm. xam nga nekk tey jii nii yow macha allah. Mm. ñoo xamante ni yàlla. Euh, li ñuy yëngu. Mm-hmm. maanaam yàlla yàlla yàlla da leen ciy jekkal. xam na nan laa ko mën a expliquer. tey jii nii boo xoolee rek. Mm-hmm. Euh, da dangay da ngay da ngay da ngay même boo xam xamul mm-hmm. automatiquement da ngay gis artiste ci moom ko euh, tey jii ni xale yi topp toppale ci loolu noonu. naka ngay dundee entre jigéen ñeeg xam nga famille beeg dugg a génn beeg détail yooyu noonu nan nga koy dundee. mën naa ne ñëpp dañ ma koy tooñee yow jigéen ñi rek nga xam yow jigéen ñi rek. xam sa xale jigéen ñi rek ngay waxal jigéen ñi la mais mais man jigéen ñi ñooy sama xarit. des fois ñu wax ma ko de. mën naa ne am naa sax ay góor góor bu whatsapp da yoo xam ni barkeen bi amul góor. kër jigéenu Papa Wally yi lay tudd. Mm. maa ngi leen di gërëm di nuyu tamit sama groupe whatsapp yëpp. maa ngi leen di béggee ñi nekk Touba ñi nekk Mbour ak ñi nekk Kaolack yëpp maa ngi leen di béggee aw ma seen fooy parce que ñoo may dooleel. Mm. waaw ñu ngi waaj nag yu rëy incha allah après single bu génnee sama anniversaire ma maa ngi koy waaj mu nekk nag bis bu rëy incha allah ma fas yéene ci ànd ak waa Elvision. ndeysaan loolu dinañ ci kontaan trop. waa ñu lay jaajëfal nag la yëgal ne aussi kontaan nañu trop si soxla yi nga bàyyi tey parce que xam naa ni tey moom guddi gi tey. Euh, dafa dafa dafa bila kii yëpp dafa chargé. <laughs> waaw dafa saturé voilà. Mm. Mm. Euh, nga bàyyi yooyu yëpp ñëw wuy si ñu ñu ngi lay delloo njukkal ci loolu di kontaan di la ñaanal aussi liggéey yëpp nga gën cee gis sa bopp quoi. Mm-hmm. allah. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf a merci beaucoup. acca kon mu ngi noonu mu nekkoon Papa Waly di ndaanaan boo xamante ni tabarkaala du ñu ko kii euh, borom 3G. comme Papa Waly bi léegi changé léegi borom. 3 Papa 3G moom. <laughs> Euh. dama koy may élage muy mm-hmm. maam maam Cheikh Fall bi. acca moom dama koy may xaadim. ak élage ak waa El Vision. Amat Fall Seer Ndiaye. Mm. kon waaw góor Baye Fall jóg leen mu wóor. Amat Fall Seer Ndiaye. kon waaw góor bay faal jugal jaayu moo wóor dabbi maam sina bu njaay seera faal yaa wane yoon wi yaa ñiit bamba feeñ maa bëgg seera faal am yéen bëgg maam seera faal biram ji booma ca ngaay gur jëgg bàyyi lal faalooy maam Cheikh Ibrahima Fall nit nga lamp Bamba feeñ. ndeysaan. <laughs> merci jaajëf. ay ba tey mu ngi noonu mu nekkoon euh, papa Wally di euh, papa 3 euh, pardon. Mhm. di ndaanaan boo xamante ni ah. tabarkaala kenn dootu ko laajte. Mhm. donc Diome mhm. ñu dugg ci suñu biir waxtaan. tey ñu war a waxtaanee mbëggeel. et eh, mbëggeel ku ko ku ko ku ko wax rek tudd ñaar. mooy góor ak jigéen. Eh, yàlla wàcce ñu ñu war a bëggante. bëggante nag bëri ay façon mais tey bi ñu war a waxtaanee nag mooy ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko sékk mm. muy comme li tubaab di wax euh, ñaari couple mm. donc euh, tey nag ñuy xool en général euh, relation yi buy mm. débuté ni nga xamante ni noonu lay débuté bu demee ba ci biir du demee noonu mu waral en général sëy yu bari di ci am problème mu waral en général diggante yu bari di ci am problème parce que da ngay gis sama classe gi bu ñuy doxaan jigéen dañ lay dañ lay dañ lay defal lu ne di la yóbbu restaurant xam nga di la di la fu ñu jëm yóbbu la lu ne ñu defal donc bu la takkee rek loolu arrêté donc yooyu est-ce que ba tey bu ñu ko mënoon a xool naka lañ ko mën a gérer sëy mm-hmm. euh, yàlla mënuñu ci gën a jàppale ko mm-hmm. waaw ñun moom wax dëgg fa yàlla bëggante rek moo ñu war mm-hmm. te te noonu rek la war a demee pour man quoi mais soo gisee safaan di am des fois dafa am lu ñu rax loolu ñuy woowee seytaan la dafa bokk si ñun dugg si ñun te fu mu nekk nii am na doole si ñun parce ñun ñëpp tey ñu ni ku ci mer euh, war a wax ak sa waay war a wax ak sa ki nga nopp mhm. euh, yow xalaatoo ni euh, seetaane nga àddal mhm. ngay xalaat rek yow maanaam sa xool tàng na il faut nga génne li nekk ci yow il faut mhm. nga wanee ni buggoo ku la yàpp il faut nga wane ni buggoo wane <laughs> wane gaynde gaynde gaynde gaynde lu te xam nga bu ñu waxantee dëgg rek bi nga ciy topp. début bi. du noonu du du du jikko boobu nga indi quoi. yaa ci doon topp di yaa doon ñëw di mocc. pour mun a jot ci moom. yàlla dimbali la ba nga jot ci moom. pour man pour ngeen yàgg. il faut loolu di wéy aussi. ñuy moccante rek. mais est jigéen ñi tamit ci benn côté waruñu muus quoi que ni euh, li ma kii di andil nii man xam naa ne ay nax la. Euh, début nga ñëw ñu yóbbu la fast food jëndala lu la neex yóbbu la restaurant jëndal la lu la neex donc nga nga nga bëgg a yaakaar loolu mooy continuer bu la takkee dépense da koy war bu tabaski jotee xar da koy war bu korite jotee leneen ak leneen donc loolu nga war a mën a yeddaat sa bopp quoi xam ne lii du continuer mm, waaw waaw di nga ko xam di nga xam ne lii du wéy mais xam nga soo xasee bëgg yu bëri yow doo ko seetlu te doo ci bàyyi dañuy gumba taxlu voilà da ngay joxe sa bopp joxe sa lépp euh. moom mooy waral léeg-léeg yenn yi bu amee rek ci mm-hmm. tàng-tàng bi da nga naan lii noonoo warul am mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. mais nag sëy yi ji ni bu ñu bëggoon mu yàgg dëgg moo fa waroon ëpp doole fen mais boo gisee léegi nag sëy yi nii fen gi moo ëpp doole moo ëpp doole te ba pare nit ki mën na la tooñ man ci man gis naa bëgg naa ci loo xamante ni maanaam daal ma tooñ la tooñ bu dee buy jar ngay fay sax mais soo koy réglé bu ko réglé ak sa xol quoi dañu toog waxtaan. ba tey pour ma bëgg suñu plateau gën a yànji rek dama bëggoon ñu ñu daw léegi indil ma Sista Combis mm. ñu mu mu ñëw ñu toog ñu gën a yaatal pour xam nga plateau bi gën a mën a neex. Mm. acca nañ ma ko indil Sista Combis